yal nañu yàlla boole nangul suñuy jaamu yàlla yal nañu yàlla defal wér yal nañu yàlla defal mucc mucc lu jafe la naka jekk rawatina jamono ji ñu toll yal nañu yàlla defal mucc yal na yàlla ubbil ñu suñuy bunti wërsëg ndax jamono ji soxla na wërsëg ndax soxla yi bari na yitte yi doomu aadama yi ñi yitte woo bari na waaye borom bi subhaanahu wa taala aji defar ay mbir la yal ñu defaral suñu mbir fii ak fële mën na ko yal nañu ko boole defal ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen bàyyi xel bu baax di bàyyi xel topp gi ngeen topp jotaay bi ak toppin wi di bàyyi xel bu baax topp gi ngeen di topp jotaay bi ak toppin wi di bàyyi xel bu baax kóllëre yi am di jàmm yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi di bég bu baax ci ñi àndoon a ñun démb ci suñ jotaayu dimaas bi ñu doon waxtaane lu jëm ci wàllu ñaan ak taxawaay yu am solo yi nga xam ne moo ci nekk yal nañu yàlla boole nangul suñuy ñaan ñun ñëpp jaajëfal bu baax ñi nga xam ne jot nañ ñu cee woo ñenn ñi indi seeni soññee ak seeni rafetlu ci ni ñu séddalee waxtaanu baax wi ay tem fajaruk àllarba ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu fiq fajaruk samdi di gaawu ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu tawxiid fajaru dimanche ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu ñaan ak importance bi nga xam ne moom la am tey jii di altine ji incha allah ñu war a waxtaane fi ñu nekkoon te mooy weeru gàmm wi ñu nekk ba di ko ba di ci sori di waxtaane lu jëm ci jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yëg gi ñu war a yëg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bàyyi xel gi ñu ko war a bàyyi xel tey ñu war a waxtaane place bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam am am ko ci boroomam subhaanahu wa taala waaye am ko ci ñun nit ñi place bu rëy la di wàcc waayu bu rëy boo xam ne am na ko yal na ko yàlla defee noonu ci suñu xol ndax xol bu mu am wàccuwaay yooyu ba kooka di ko dund boroom xol boobu mooy ki gën ci nit ñi mooy ki gën a mooy ki ñu war a defub xarit mooy ki ñu war a jaxasool mooy ki ñu war a bokkal ab jotaay ndax ñett yooyu yépp lu ñu war a tànn la nit ki daa war a tànn jotaay ñi muy toogal waaye daa war a tànn itam ñi muy àndal bu ko defee loolu day def ay jeexital ci moom mooy kan ndax woykat ba ne woon na nit ki moom boo naree sonn ci xam mooy kan xoolal ñi muy àndal rek ndax ku ne ña ngay àndal dangay ngay nuroog ñoom ay jëf moo tax ngeen mën a ànd anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi dal nañu yàlla may àndandoo yu baax yoo xamante ne nit ki da koy tànn ndax booy ànd ak boroom xel mu gàtt doo jóg ci am gàcca booy ànd ak ku bari bëgg-bëgg doo jóg ci def lu luñ lay xeebe loolu rek la ndax bëgg-bëgg ya da lay yóbbu ci loo sa bët tegu nga jàpp ne war nga koo am xel mu gàtt maay tax doyee di gaay tax bëgg àdduna gaay tax boo moytul nga fétal ba jaar foo war te jaar waxtabir rijaala qabla suxba wala tusaaxib xumuran aw saarax ba nanga tànn bu baax ñi ngay àndal bul ànd ak ku nitoo diku bul ànd ak borom bëgg-bëgg yu bari koo xam ne bu ànd ak moom ci rêve rek la nekk te du jéem a réaliser dara baaxut booy ànd da ngay ànd ak borom yitte ki ngay àndal daal bu jotaay bi lu xumb xumb bu julli jotee na doon koo xam ne dana la waxtu wi jot nañ julli na doon koo xam ne boo bëggee jëw mu ne la déet na doon koo xam ne booy déglu alxuraan du ko déranger na doon koo xamante ne nii du la pousser ci aw jigéen wala mu pousser la ci caaxaan bu deew jigéen du la pousser ci col gu bon wala mu pousser la ci ànd ku góor kon daal tànn ay àndandoolu am solo la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal nañu ko ba tàyyi bu ñëwee itam suñ borom tànn na ñu gën boole kook moom mu ànd ak ñoom ba taxawal li gën moom nag mu am wàccuwaay bu rëy ci jamono am ko ci société bi ñoo ngi siyaare baax a baax suñu xarit yépp yi ànd ak ñun jotaay bi te soppante googu dara lalu ko lu du diine ndax ñun yàlla baaxee nañu ba xarit yi am yépp daaraa ñu booleeg moom maanaam waxtaani diine rek moo ñu booleeg ñoom loolu yàlla dogal ndax it e, dafa am ñooñ ñooñu ku ne daa am rek foo war a xool ak foo war a gis di jéglu bu baax a baax nag ci njuumte bépp boo xam ne def nañ ko ci suñu dund di ko jéglu suñu soppe di ko jégglu suñu xarit yi nga xam ne buñ déggee ci yow safaan ba mu naqari leen buñ déggee ci yow yokkute bànneexu ci safaan mënta ñàkk ñoo ngi koy jégglu suñu borom subhaanahu wa te di leen ko jégglu yéen itam bu baax a baax a baax ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm di ci beral bu baax nuyoo suñuy kilifa ci ak mbokk suñuy kilifa ci daaw bi muy oustaz Alioune Sall ak mboolem ñi nga xamante ne ñooy ànd ak moom ci liggéey bi xaritam imaam Ahmad Daam ak ñu baree baree bari ndax ñu ñoo raw ak buum def ko suñ baat dénk leen ko ci fànn googu ndax yëg ne nit mënta ñàkk kilifa te ñu mat ko sëkk nag ci doxin ak ci waxin ak ci lépp lu mën di doon noonu lañu ñuy ñaanal itam suñu wayjur wu jigéen wi fi desandeegun yal na ko fi yàlla yokk yàggal te dëgëral ko defal ko ndam ci njabootam ndax sonn na coono boo xam ne mat naa ñaanal ni waajur yu bari sonne mas naa ko wax fii ci benn jotaay fàttaliku naa mu xëy dem marché jaayi syndicat ba mu naaj ngir am lu mën a togg ñëw togg ko bay war a yàq batale ñu ko ñu yàkkal ko ko mu gontaat dem ca marché ba kon kooku ku ne xam na ne waajur la wu taxawu ci njaboot sonn ci lool atal aan yal na ko yàlla yokk a dëgëral te dëgëral mboolem waajur yi nga xam ne ñooy bàyyi xel jotaay bi dama koo jël ne exemple ne bari na ñooñ buñ leen joxoon micro ñu wax li seeni waajur daj ci coono mu doy sëkk loolu nag njàmbaaruk doom la war a yokk ngir bu loolu doon loo xam ne da koy yokk ak njàmbaar ak mu gën cee góorgóorlu yal na yàlla defal ñu barke te defal leen ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam boroom jikko yu rafet yu neex a waxtaane yooyu ci la ñuy dellu seeti ndokkeel bu baax a baax suñ mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk cene ba ak li ko wër tey jii ñu ne ci bisu gàmmuwaat bi ngénte la tàntalaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax jàngale ay jikkoom ndax bëgg rek jikkoom yi daj feef dell àdduna yal yàlla fay leen ko suñ mbokk yi nga xam ne ñoo dëkke Kaolack te tey ji incha allah sax ñu fas fa yéene yendoo ak ñoom ñoom itam ñu ndokkeel leen bu baax a baax ci gàmmuwaat gi ak yitte ju am solo ji nga xam ne moom lañ ko jox ak taxawaay bi nga xam ne moo ciy am di ci ndokkeel penc yépp di ci ndokkeel xalifa yi ak gan ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko bitim réew te ñëw bokk si ko ak ñoom waxoon naa la ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku am wàccuwaay la maanaam ku ñu reconnaître la ci kaw suuf jinne yi reconnaître nañ ko malaaka yi reconnaître nañ ko nit ñu baax ñam jamonoonteel reconnaître nañ ko waaye bi loolu yépp jàllee borom bi subhaanahu wa taala reconnaître na ko teg ko place bu rëy ba ne ko wa innaka la ala xuluqin azim jagleel ko jagle yu bari def ko mu def xaritam yàlla sax mas na koo invité ak ngan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi mas na koo invité ak ngan ne ko kaay dama laa soxla mu bàyyi koo màkk jaar baytul maqdis jël yóbbante bi yonent yépp ko ci saak dem wuy ji boroomam subhaanahu wa taala ci ngan gu rëy googu mu ko woowoon keroog ngan nga neex na lool yàlla won na ko fa lu ne won na ko keroog aljanna ca ngan nga yàlla won na ko keroog sawara maquette ba ak la fay yóbbu nit ñi ne ko moytu ko te moytul ko sa gaa yi boo delloo dégg nga yonent bi ne ko waaw keroog ca ngan googu mu am ak e, boroomam subhaanahu wa taala suñ boroom wax na ko fa xam-xam yu bari waaw wax na ko fa xam-xam yu bari wax nañ ni ñetti xeeti xam-xam suñ boroom jox na ko ko benn bi mooy bii ñuy waxtaane ku góorgóorlu xam ci dara benn bi nee na moo koy xamal ku ko neex benn bi nag du ko xamal kenn da koy denc ngan gu neex la nekk ak boromam subhaanahu wa taala keroog kon kooku am na wàccuwaay ca moom suñ boroom defal na ko tawféex yu bari mooy mooy ki gën ci ñim bind sallallahu alayhi wa sallam moom nag ba mu koy wax dane tiitaru taxut waaye nee na yowmal xiyaam maay ki fa gën foofa nag boolewu ci baatu tiitar ma waxoon la ne li tax yowmal xiyaam waxu ko mooy yowmal xiyaam kenn du ko nattable ndax yonent yépp danañ daje kenn du ñemee siggi ku ne fa nga yuur sag doq moom ngay yuur ni ci yàlla ne pat ndax borom bi subhaanahu wa taala nañ ko wege wor ma jaag xëy ja jalaal jim jëfandikoo kerew ca bis ba wàccee jant bi tiitalaate ga ak wone buuram gim doon ak fas yéene àtte jaam mi kenn wóoluwut sa bopp keroog kenn xamut kuy jàll ak kudut jàll ba ci al rusul wal anbiya sallallahu alayhi wa sallam Mustafa ma ca Madina moom rek mooy siggi waaxu ne ñaadam ñaadam wuti borom bi subhaanahu wa taala bu agsee sukk bëti woomam yu tedd ya fas yéene sujjootal borom bi ndax bàkk ko yàlla keroog da ko naan siggil te wax li nga bëgg moom rek moo am loolu keroog yowmal xiyaam sallallahu alayhi wa sallam siggil te wax li nga bëgg wala sawfa yuxtiika rabbuka fa tarda maa la ko waxoon ci àdduna tey laa koy jëmmal waa àddunaa la waxoon ab jirim nga tekki woo dara waa àddunaa la waxoon ne la bu dee li la yàlla yónni dëgg la waroo jeexal alal waxoon naa la ne la duma la bàyyi mukk tey la jàpp gi di gën a feeñ waxoon naa la ne ca àdduna ne walal axiratu xayrun laka min al ula li ma la dencal fii moo ëpp fuuf li waa àdduna di xëlëmtoo waxoon naa la ca àdduna ne la wala sawfa yuxtiika fa fatarda tey jii lay feeñ xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw ngir yërëm jaam ñi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin fi dunya wal axira moo ñëw ngir yërëm jaam ñi waaye yërmande jooju fii ci àdduna ak fële ci alaxira sallallahu alayhi wa sallam fii ci àdduna moo sowee nit ba nit nite bu njëkk ko yor sa jabar ju rafet mën ngaa jaan ak moom ci mbedd mi nit nangu ko bu njëkk ko yoroon sa alal nit mën na koo këf et cetera et cetera jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu baaxee ñu ku ñëw niteel nit ba mu nite ba nit lekkatul medd ba nit di moytandiku ribaa ba nit reyatul bakkan ba nit sàccatut ba nit di moytandiku njaaloo ba nit di moytandiku fen ba nit di moytandiku jëw ba nit di moytandiku xas as gor ba nit di moytandiku ba nit di moytandiku ki ñu defal loolu kenn amut fayam kooku xam nga ne am na wàccuwaay bu rëy ci kaw suuf wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin ak illaa kaafatan linnaas benn bu nekk ci yooyu daraja la waaw benn bu nekk ci yooyu daraja la borom bi subhaanahu wa taala moo ko defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko ay ngëneel yu bari defal ko ay ngëneel yu bari wa min fadailihi sallallahu alayhi wa sallam annahu awalu man tansaq anhu l ard wa awalu man yanfax man yasfax bokk na ci ngëneel yi mu am ak jagle yi ëllëg yowmal xiyaam bu ñuy dekki mooy ki nga xam ne mooy njëkk a génn soo si ne tàcc sallallahu alayhi wa sallam génn laa ilaha illa allah waaw laa ilaha illa allah génn cay ñëpp dekki ñëpp allahu akbar ku ne xool ko ci sa bopp nga ne bu xeet wala ka nga yóbbu woon robi waaw xoole ëllëg yowmal xiyaam mooy kii ramm nit ñi sallallahu alayhi wa sallam kon wa amma bi nixmati rabbika fa xaddis xéewal yu baree baree baree baree bëri yoo xamante ne yonent bi alayhi salaatu am na ko te nag noonu mu kawee ak ni mu réyee ak daraja yi mu am téewul mu ne laatu xayiruuni min bayni min min baynil anbiya waaw bu leen di eh, tàqale ak a tànn ak a seppi ak a gënalante diggante yonent yi boroom xam-xam yi indi ci ay tontu yu yaatu ndax lislaam moom li ngay njëkk a gëm mooy yonent yépp ngay gëm laa nu farriqu bayna ahadin min rusul ni nga gëmee yonent yàlla Muusa mooy raw ni ko yahud yi gëmee ni nga gëmee yonent yàlla Isa mooy raw ni ko nasaaraan gëme ni nga gëmee yonent yàlla Muhammad mooy boole ngëm yooyu yépp maanaam da gëm ni ñoom ñépp ay yonent lañ kenn ku nekk da ngaa yoroon sariya di ko doxal ku ci ñëw ku ne bu keneen ñëwee sa sariya day jeex bosu koo koy continuer ba yàlla tànn yonent yàlla muhammad yónni ko mu ñëw boole sariya yi fi jaaroon yépp dugal ko ci bosam jël la ca gën tibyaanan li kulli shay muy alquranul karim mu indi sariya boobu nga xam ne moo àtte tey mooy àtte suba mooy àtte ginnaaw suba sallallahu alayhi wa moo tax ku oyof la woon ku mënoon a toroxlu la woon ku bañoon puukare la bari na koo gis ci penc mi muy tuut muy muy puukarewu da koy mottalikoo waaw yenn tiitar yi ñàkk a mat la ku matut mooy mottalikoo tiitar yooyu di yëkkati mbagg manum lëmm waaw kay yooyu yëpp nit nekk ci bëgg ñu lay tagg ak ñu lay woy parce que yow da ngaa matut faaw ñu am yuñ feeñal ci yow ngir nga mat waaye ci mat dëgg du du du tiitaroo yu bari du tiitaroo yu bari moo tax yoon saa sallam tiitaroowul ñu ko jur tiitaroowul ñu ko jur te moo ne mat nañ tiitar nag mat nañ tiitar abdullah waa Màkka yépp dagg topp ko di ko per njaayu ñépp nopp ko ci waxin ñépp bëgg ko laa bëgg a wax ñépp am ci moom cofeel gu rëy Abdoulaye dëgmal boromam subxanahu wa taala wax ne jote ak jigéen ju ma tëkkut faatoo ma ko gënal bàyyi boobu mën naa tiitaroo ci penc mi waaye yonent sa sallallahu alayhi wasallam ne maay doomi Abdallah ja defut loolu muy tiitar kese Abdul Muttalib mi gént gént ga dem gas sam-sam yeesalaat ko ci wéere urus yañ ko suule woon waa màkk nangu ko ci moom ñu jël ko def ko ca Kaaba ga muy sayidu Qurays taxaw taxawaay yu rëy kooku ku ne xam na ne ma def na koo tiitaroo Haasim mi jur Abdul Muttalib ku ne mën na koo tiitaroo waaye Yonent saa sallam nee na loolu baax na lool waaye loolu du mbir mi loolu du mbir mi mu siggi nag waaxu nag jëf-jëf ju rëy yoo xam ne jëfam ak jikkoom ak taxawaayam doy na sëkk ñu koy tagg ba yowmal xiyaam mbokk yi loolu duñ ci roy loolu duñ ci roya ah. daa mel ne roy ci jot na moo tax waaja ne woon ku la mën a jur baax na yow waaxul tawee rek yow daal bi nga juddoo santal ki la jur tawee nag jéem a def dara nag jéem a def dara ndax ñun ñëpp buñ jëlee mbir mi yemale ko ca maam ya def loola muy woy wi bu sët yi ñëwee ñoom kan la ñuy tiitaroo maam ma da di gën a sori kon ñun nañ def dara nag nañ def dara nañu nañu góorgóorlu def dara nag waaw nañu nañu góor góorlu def dara ndax Cheikh Tidjadji Malick si radiyallahu anhu fa mu bokk nit baax lañ ñu sell lañ daa góor góorgóorlu ba aw turam jóg ca kaw ñu koy fàttali ko sëriñ Tuubaa rahmatullahi alayhi moom it noonu magi réew mi yépp noonu waaye nag lan lañu war a góorlu nag samp ko gannaaw bi ñu leen tiitaroo am sansu bokk ak ñoom am sansu bokk ak ñoom am sansu am maam ju jàmbaare sans la waaye yow doo ci dara nag yow moom doo ci dara da nga am sans bi képp keneen mënoon naa am sans bi li ngay rawee nag mooy bi nga amee sens ba noppi yan effort nga defal sa bopp yan effort nga defal sa bopp yaa ngi sagal sa maam joojoo yaa ngi koy sagala noo def ak alxuraan ji mu fonkoon ba am ci lu ne noo def ak jàkka fonkoon ba am ci lu ne noo def ak nit mi mu fonkoon ba am ci lu ne noo def ak gëm boppam gi mu gëmoon boppam ba tax kenn yëbu ko ba tax kenn yëbu ko yàlla xam na ne léeg nga xool loo xam ne dangay ngay ruus lobby yi lobby lobby nga xam ne léegi jàpp nañ ne sëriñ bi mën a doxle daal mooy sëriñ bi bari ay lobby nga créer say lobby rek nekk ci lobby lobby waaw lobby rek léeg sax naan deret daanaka ngay def dereeti njaboot ngay jël di ko naan njaboot gi la gëm ngay jël seen deret di ko naan mooy foo yëkkatee kàddu sa bopp a tax yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal ñi ma bokkal génération te tolloog ñoom jamono bariwaana ci ñooñ fu ñu yëkkatee seen kàddu rek seen bopp a tax fa suñu yéenee doonu daara ndax loolu xeeb nañ ko fa suñu yéenee doon jub ndax loolu xeeb nañ ko waaye nag mën ngaa ne ci parti politique ndax jàpp nga ne da ngaa war a dund yow mi ne doomi soxna nga am nga wàccuwaay bu rëy parti ba nga nekk lu rëy rek nga fa war a taxawee lu rëy rek war nga buñ toogoon ba julli jot ñu xool la xel yépp dem ci julli nga jóg jiite leen war nga bu ñuy waxtaan ba jëm ci lu yàq jikko ñépp sooraale la ndax sa jikko yu baax ndax li nga donn ndax image bi nga indi li ngay protéger bu boobaa kenn du wax ne bu kenn dugg ci politique bu kenn jege parti bu kenn taxawee yenn taxawaay yi waaye su fekkee safaanub loolu moo am waxuma la yow ci sa bopp da yàq sa jëmm waaye da ngaa yàq aw waaw ab image nga yàq da ngaa salteel lu ñëpp bokk dangaa salteel lu ñëpp bokk loolu dara jëru ko te loolu dara jëru ko wallahi buñ toogee bay wax ne ñoom sëriñ diw wala ñoom diw nga tudd leen nga tudd lu ñëpp bokk ñu ne ñoo ko lekk da ngay rus ci ñoo xam ne ñi ñu donn dañ daan wax ne ñoom lépp lu leen waaye mas a jox ñu joxe ko waxuma waxuma lekk lu xaraam de waaye lu leew li ñu am dañ koy séddaat nit ñi dañ koy séddaat nit ñi nangoo liggéey lool bëgg a féetewoo jaamu yàlla lool bul fàtt ne da ngaa war a jubóog borom bi subhaanahu wa taala te da leen a war a tane euh, lobby yeeg euh, stratégie yeeg bëgg a dund yeeg yépp jëmut kër bari na sax kër yoo xam ne ña ngay wax naan état defa lu ñu nàngam état defa lu ñu nàngam euh, ci ci suñu kër yi boo ci demee danga gis loo xamante ne wallahi nit ñi fa dëkk sax xawoon nañ koo mën a def nit ñi fa dëkk xawoon nañ koo mën a def tey boo demee bawal ga ma gën a miin da nga gis sëriñ boo xam ne am na fukki kër kër gu nekk la ca nekk mën na téeméeri million yu mu ko tabaxi moom daal na miir bi gudd nga lay ëtt bi euh, teg sa njoowaan ñu jàpp ne looloy barke waaw barke bi daal mooy miir bu gudd kër gu rëy oto bu rafet bassin bu rafet yaram wu liis loolu mooy barke baax na barkeb sëriñ du woon loolu mooy ku ko xool xelam dellu ci yàlla loolu moo nekkoon barke nitu yàlla bañ ne ko ba baat boobu lañ leen di wooyee ku la xool sa xel dellu ci borom bi subhaanahu wa taala loolu moo nekkoon barkeb nitu yàlla teewul nag mu mën a dund nag am kër am soxna yor oto bu ko jamono laajee waaye nag mën a yëkkati kàddoom janu nit ñi xool leen ci ay bët wax ak ñoom wax juy defar te kenn du lamsal loolu jikko ju rëy rëy la bu boobaa danañ ñu naw waa adduna danañ ñu naw taalibe danañ ñu naw waa bitim réew danañ ñu naw bu loolu amut waa àdduna danañ ñu xeeb muy njiit yi ndax kuñ ci toogal doo duñ la wax mukk lu jariñ nit ñi lu jariñ nit ñi déedéet suñ yitee bopp rek suñ yitee bopp rek bu njëkkoon buur moo daan tiitaroo dem naa ci sëriñ ba léegi sëriñ si ñooy tiitaroo dem naa pale waaw ñooy tiitaroo dem naa pale président sama xarit la ministre sàngam sama taalibe la mais après après loolu yóbbu ñu ba ñun ñëpp sax dañ naan président sëriñ sànga mooy sëriñam di woy sëriñam ñun askan wi loolu tardeel nu moom léegi bu fekkee président am murit la après murit gi kan la ko defal nekk gi mu nekk murit nekk taalibe taalibeem googu kan la ko defal moom lay jariñ wala man wala ndax looloo tax ñu fal ko bu nekkee ab tijaan nekk tijaanam googu lan lay jariñ kan la ko defal wala looloo tax ñu fal ko ndax loolu daa bokkoon ci plan ba muy campagne ba tax léegi kenn ku nekk mën a dem ci ñoom naxe leen façon naxin wu ne jàpp ne da nga leen di jox danga leen di jënd mbir mi commerce la taxawaay bu leerul la mbokk yi loolu soree na lool ak li mag ñi donnoo woon ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam royee ko ci ñoom kero bu muy gàddaay di ñëw madinatul munawwara da leen a fekk ñuy bëgg a taxawal buur nguur lañ doon waaja a sos waaye dafa woon ginnaaw nguur ga ndax xam na ne loolu dara nekkub sëriñ nekkub jàngalekat ba yóbbu lislaam fa mu ko war a yóbbu agut madinatul munawwara waa màkka mas nañoo ñëw benn bis këram ne ko bu dee dangaa bëgg a nekk buur ñu fal la nga nekk suñ buur ñun araab yépp te nga bàyyi sa lii ngay woote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ bu dee alal la jox nañ ko ko ba mu doy nee nañ ko boo bu dee jant bi nga bëgg bu dee sax dangaa bëgg ñu jox la alal yépp ñu dajale ko jox la ko jox nañ la ko yonent bi tëb loolu yépp ni leen jant bi sax bu ngeen ko mënoon a buddi ak weer wi teg ko ci sama loxo du tax ma yàq sama mission du tax ma yàq sama mission mbokk yi mission yu bari nag mi ngi tàmbali di yàqu waxuma la weer weeg jant bi waaye joxuñu leen sax doon ju suuf mission bi tàmbulee yàqu ñu tàmbulee di logg loggal ay wax bu dee ca daara ja la bu dee ci rajo bi la ñu tàmbulee logg loggal loolu mu ngi tàmbulee am fu baree baree baree baree bari ci ruq-ruqaan yu bari te dara waralu ko lu dul enveloppe wala joxe moo tax bëgg nañ lool alal waaye léeg alal damm làmmiñ te boroom du ko yëg léeg-léeg nit gis loo xam ne bu dul liñ ko leel mu wax ci ba ne xaaw waaye lim lim logo tax du ko mën a wax sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la muccoon ci loolu la muccoon am ci taxawaay bu rëy moo tax li mu waroon a taxawal boromam lépp mu taxawal ko nam ko war a taxawe ba am wàccuwaay bu rëy boobu ba am wàccuwaay bu rëy boobu suñ borom ne maa fasante kóllëre ak yonent yi jiitu woon ñëpp ni leen su ma indee ab yonent seen ginnaaw bi ma war a indi ndax da ko gëm ñoom ñëpp ñu ne danañ ko gëm danañ ko dimbali suñ borom door koo indi muy sallallahu alayhi wa sallam kon ñooña rek reconnaître nañ ko teddal nañ ko teg nañ ko place bañ ko war a teg wa id aqafa allahu mithaqa nabiyina lamma ataytukum min kitaabin wa xikmatin summa jaakum rasulun musaddiqun lima maakum la tuminanna bi wala tanduranna xaala a aqrartum wa aqastum ala dalikum isri xaalu aqrarna xaala fashadu wa ana maakum min asaahidin sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko bu ñëwee danañ ko jàpp danañ ko jàppale danañ ko danañ ko déggal danañ ko gëm kooku mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam sangub sang moo mujj ci yonent yi am wàccuwaay bu rëy ci nit ñi maa kaana muhammadin aba ahadin min rijaalikum walakin rasul allah wa xaatama annabiyin wa kaana allahu bi kulli shay'in alim danañ ci ñëw incha allah ci ni nga xamante ne wàccuwaayam boobu noonu ñu ko reconnaître ca asamaan ya reconnaître ko noonu ci suuf yi reconnaître ko noonu ci diggante nit ñi ak ginne yi ñu waat xel ci taxawaay bu am solo boobu nga xam ne moo am ak ni ñu war a jànge jeexitalam yu am solo yooyu nga xam ne moom la am yal nañu yàlla boole jàppale yal nañu yàlla boole sàmm def ñu ñu doon ay jullit def ñu ñu doon ñu xam suñu wàccuwaay ak suñu taxawaay ak niñ koy doxalee def ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy sàmm ndonoy mag ñi waaw njuumte mënta ñàkk waaye ku juum dëppal njuumte mënta ñàkk waaye ku juum dëppal waaw nit da ngay teel a jox si da mel ne ak jur gu xëy wuti dem jëfi ndaw wu am ay jaar-jaar am waaye nag dangay ngay teel a ñibbi si balaa jant bee so mooy tax nga xam gétt ban ngay fanaan boo ñëwee yal nañu yàlla def ñu teel a ñibbisi te buñ jox see dajeeg borom bu bari yërmande bi mu fekk ñu te aar ñu te sàmm ñu ñoo ngi jégalu baax a baax mbokk yi bàyyi xel jotaay bi yépp yenn ci joxoñ ji ñu ci jot a def te wax ji jëm ci sang yeeg suñuy kilifa réew mi bindoowut noonu aada ji itam doxewut ci njaboot di fàttali kilifaam ñoo ngi leen koy lu baax a baax te di leen ko tuubal ñaan suñu borom mu boole leen jéggal te sàmm leen bu baax a baax yokku leen barke mag ñi nga xam ne moom ngeen donn sàmm ñu itam bañ mën a jariñu ci barke yooyu def ñu ñu doon ñoo xam ne mag ñi dañuy bég ci ñun di ñu tiitaroo comme ñun ni ñuy béggee ci ñoom te di leen tiitaroo yàlla mën na ko yàlla ñu ko boole defal ñoo ngi leen di jaajëfal baax baax te di leen ndokkeel jaajëfal baax Oustaz Alioune sàll moom lañ leen di bàyyeel mu ànd ak yéen ci waxtaanu fajar wi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmm ñu ñaan ko mu defal ñu jàmmi àdduna defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu